donc tey dañu am kontante accueillir euh, ay gan yu yu jugee France maanaam en plus particulier ci jugee ci métropole Montpellier ñu nekk nag ay gan yoo xam dañoo ñëw pour waxtaan ak ñoom ñun ci benn événement bu am solo bu ñuy nar organiser octobre muy ci wàllum aada muy biennale Afrique Euro Afrique dafa nekk événement bu am solo ndax dinañu permettre ñu dem wane foofu noonu suñu aada waaye tamit dina am na beneen ngëneel ngëneel bu ci nekk mooy dinañu permettre ñun collectivité territoriale yu fa nar a teew ñu rencontrer suñu yeneen moromu collectivité territoriale ñu am ay jumelage am ay échange euh, de de bons procédés de bonnes pratique donc mu nekk mbir mu am am solo waaye lu gën a tax tey rencontre am solo mooy jamono ji ñëpp gis nañ suñu diggante ak euh, waa France nit ñi ñoo ngi ciy wax wax ju bëri ñu nekk nag ñoo xam ne ne wax dëgg yàlla amoon nañ partenariat bu bu am am solo te def nañ fi yoo xam ne ne lu concret la mais tey nag jot na ànd bi ñu xoolaat ko xoolaat ko mu gën a nekk dans le sens d'un partenariat gagnant gagnant te nag kenn mënut a wax partenariat gagnant gagnant te waxoo collectivité territoriale yi en tout cas ñun collectivité territoriale yooyu collectivités territoriales yi dañoo war a gis suñ bopp ci tëggaat bu ñu war a tëggaat suñu diggante ak waa ak waa France euh, loolu moo tax tey jii ànd euh, rencontre nekk rencontre am solo waxtaan nañ ci suñ naataango naataango yi nga xam ne ne ñoo jógee ba France ñoo seet si ñu ñu dalal leen jàmm di ñaan euh, diggante bi gën continuer Montpellier nag ñoo ngi koy sant di ko gërëm parce que seen taxawaay ci renouveau du partenariat entre France ak Sénégal wala ak Afrique d'une façon générale am na solo am solo bu rëy ndax euh, en 2021 rek organiser nañu sommet bu mag ci diggante Afrique ak euh, France en tout cas tey wanewaat nañ seen taxawaay ci événement bu am solo bu événement culturel bu ñu war a def mais non seulement cet événement là dafa am volet culturel mais tamit day am volet économique ak scientifique incha allah.